mbokki jullit yi fi teew ak mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu nuyóob lislaam bu sell boobu yi di wax ne rekk kàddu gi nga xam ne ñi ngi ko tudde kàddu dalal ak tatagal gan yi maa ngi koy yëkkati ci turu njabootu a cheikh muxtaar bintaloo gépp te nekk ca bopp ba di sunu wéyjur muy a cheikh ahmadul di ko ndokkeel bu baax nag moom sëriñ bi ci jataay bu am solo bi nga xam ne ak njabootam ñoo ko ko wooteel fas ci yéenee biral fésal wane liggéey boo xam ne nii moom lañ ko doon liggéeyal mu joxe woon ci ndigal ànd ceeg mbokk yi ànd ceeg waa kër gi ba bis bii nga xam ne moom lañ koy xamlee tey nga xam ne lépp ci ndigalam la tegu jataay bi nag ni ngeen ko xamee dañu ko woote ngir xamle ngir séddoo ak ngir gaaral liggéey boo xam ne njaboot gi dañ koo defoon ci kilifa gu maax googu di Cheikh Muxtaar Bintaloo muy ab téere boo xam ne dañ koo def gëstu ko ci moom ci ak dundam ak ndonay xam-xamam ñu woote ko tey nag fas ko yéenee séddoo fas ko yéenee bokk fas ko yéenee wan mbokk yi di ko amale nag ci barab boo xam ne yaakaar naa ci yoonu murit wala ci lislaam bi yëpp sax kenn ku ne xam na historique bi muy daarul mannaan yàlla dogal nag am ak féeroo gu ci am ci xew-xew bi fiñ ko xewale ak ki tax ñu koy xewal muy a Cheikh Mokhtar Binta ndax ci histoire ñi ñuy nettali relation bu dëgër boo xam ne sëñ Mokhtar Binta am na ko ak sañcub daaru man naan aw daarul man naan ndax sëriñ bi bi mu nekkee ci géej gi te bind ab leetar Cheikh Ibra Faati sant ko mu ci ab dëkk te tudde ko Daarul Mannaan ba leetar ba àggee wax nañ ba leetar ba agsee wax nañ ne Cheikh Ibra Faati sëñ Maxtaar Binta la njëkk a yebal ci Daarul Mannaan ci barab bi muy fi ñuy wax guy tàggoo ne ko demal seetali ma barab booba mu ànd ak lenn ci ay mbokki taalibe ba ñëw ca barab ba xool ko wax nañ ne keroog sax benn jumtukaay bu mu yoroon moomal ko boppam jàpp naa ne jaasi la bu ma juumut moom la gas suul ko fa ngir xàmmee barab boobu kon jàpp naa ne tey suñ ko wooteelee ab bis fii ci daarul mannaan li arab yi wax naan at taarix yuidu nafsahu dana dëggu ci mawqif bi ñu nekk kon yàlla na yàlla def musaadafa boobu muy musaadafa boo xam ne dañuy xëcc jëme ñu ci àgg fi ñu jëm am li ñuy wut ci jataay bi dama ci doon ubbi ngir rek barkeelu ba mën a tàmbali gaaral téeréem bii nu tuddee ak Cheikh Mokhtar Bintaloo xayaatuhu wa turaasuhu al muy téere boo xam ne dafa am histoire am ay étapes yum jaar am yoon wu leer wuñ ko ci wàllu gëstu xam-xam ba tax mu mel ni mel ci làmboo lim làmboo ci ay xeeti njariñ ak xeeti fànni xam-xam te ci ñeenti tomb yooyu ci laa bëgg a tër euh, lii nuy gaar histoire téere bi mu ngi tàmbalee ci li ngeen xam yéen ñëpp wala ñi ëpp ci yéen mooy ne sëriñ Moxtar Binta kenn la ci boroom xam-xam yi toppoon borom Touba bokkoon ci ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen seen xam-xam ñu mën koo jëmmal ci bind di ko woy di ko wesal muy lu néew ci borom xam-xam ku mane ci ñaari bor yëpp bokkoo na ci ñi nga xam ne mën nañ ne bokk na ci ñi gën a wér lu ñu toxale ci Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu mu ko daan def ci anam gu yéeme ba nga xam ne bu masaana noppi ci lim lay nettali ci Serigne Touba radiyallahu anhu yow mi ko fekkewul day mel ne yaa ngi jàkkaarloog jëmmam ja di xool barab ba di xam waxtu wam ko defee sax léeg-léeg sax mu yokk ca luy wane na diggante bi ko bi muy nettali nettali bi ak diggante bi xew-xew bi amee diggante bu gàtt la yooyu yëpp di ay màndargo yooyu firndeel li muy wax lépp lu wér la lu ñu mën a wóolu la lu lu lu ñu mën a am confiance moo ne siiw na ne sëriñ Moxtaar te mas naa lakkle te lakk googe sànk na lu bari ci ay taalif yu mu bindoon waaye teewul ku ubbi majmuwaat aju Cheikh Xadim radiyallahu anhu nga xam ne sëñ ab Ahad Mbàkke moo ko dajaloon dina la attirer sa attention nga gis lu baree bari ci la ca nekk di ay riwaayaat ay xikaayaat ay nett li yoo xam ne sëñ Moxtaar Binte ci loxoom lañ ko tuxale loola di benn kuy miin it référence yi nga xam ne ñooy bind ci Serigne Touba lu mel ne Minanul Baaqil Qadim Irwaa'u Nadim da gis turu sëñ Maxtaar bind te di répété wu di baamtu nekk ab delluwaay ci ñooñu bind téere lool loolu yi di meneen bir ku mii nit ak njabootam da xam ne léeg-léeg mu xeeñ la wala nga gis aw këyit woo xam ne bokk na ci am bindam a ah, mu mel ne kon mbind yu tasaaroo yooyu ah dajale ko ci benn téere génne ko ci turu njaboot bi mbir la moo xam ne mënutoon a ñàkk ndax moo gën a mucc ay gën a sagal njaboot bokk na ci niñ ci boole ñi ci man dara ñëpp biñ koy liggéey dañ cee boole ñi ci man dara ñëpp tàmbale ko ci njaboot gi taxawal kuréel boo xam ne mbooloo ñoo ko bokk loolu bokk na ci li leen may téere bi àgg fi mu àgg bi mbooloo mi mbooloo mépp di ci bokkee itam ñu jaar ko nag fi ñu war a jaar liggéeyu xam-xam te ni ko sëñ Abdou Lahad teqantalee léegi la tàmbulee ca dajale gaag ak segg ga ak ba àgg ca topp ga ak toppaat ga yooyu yëpp mooy rekk dañ ko jaarale ci yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaarale lépp bépp liggéeyu xam-xam ñetteel bi tax mu rafet rafetaay boobu itam mooy maandu maandu giñ ci tënku maandu li ñuy tudde maandu ci xam-xam wax na ko ay yoon yomboon na luñ luñ ñu fekk mbir ñu ne sëñ Muxtaar ko ci moom la jóge rek ñu daal jël ñu daal jël am na ñu bari buñ dee bind ci seen kilifa lu rafet lu rafet lu ko xaw a jege rek dañ koy jël moomale ko ndax jàpp ne xëy na dañ koy yokk wala dañ koy dolli suñ kilifa yii nag di leen sosal dara di leen yokk dara doo ñëpp dara li wér te sax loolu doy na leen sëkk moo tax li wax ci mujj gi ne kuy segg mën naa am la muy am mën naa bañ a bari lool waaye nag moo ëpp njariñ ndax ku indi woon loo dajee rek andi itam boo ko defee tey ñi fi nekk tey buñ ko nangoo it bis dana ñëw ñay ñëw duñ ko nangu kon boo ko seggut ñeneen danañ ko segg kon li gën nga seggal ko sa bopp ñoom nag noonu lañ def dañoo teg ay nattuwaay yoo xam ne nattuwaay yooyee yu xam-xam la te lu nattuwaay ya nangu rek la ñuy jël lu mu nanguwut rafet rafet du tax ñu jël ko ndax bëgguñoo jéem a yokkal seen kilifa loo xam ne amuñ ci lu leen wóor loolu bokk na ci li ko rafetal li may mujj nag ci liy wane solos mooy dama jàpp ne téere bii dafa war a doon royukaay jëmmi téere bi ak niñ ko liggéeyee daa war a doon loo xam ne ni ma waxee ne ñëpp lañ soxlaa xam ñaandoon ak sëñ bi ñépp lañ soxlaa xam kon seen njaboot war nañoo taxaw taxawaay bu mel nii waaye foog naa ne ku ko bëggati du jafe ci moom ndax yoon wi ñu xàll foog naa ku ñëw rek da cee jaar day yomb ndax ni ñu ko tërale foogu ma ne am na weneen yoon wu gën a rafet wuñ mën a jaar ba bind ci kilifa gu mel suñu Cheikh Mokhtar Bintu Lo ak ñeneen kon foog naa ne keneen ku ñëw mën naa jariñoo ñoom lii ñu def ñoom sonn nañ ci waaye nag daañ noppal ñeneen kon li may wax rek mooy na ci ñëpp roy te jariñoo liñ def ñoom itam liñ jariñoo mooy yoon wi ñu xàll ku ñëw rek jaar ci niñ ko tëral rek foog naa ne keneen ku doon bind ci kilifa geneen tam bu jaaree fi ñu jaar rek bu te tënku nag ci liñ tënku lépp kon bu génnee dana amee solo ni foog naa ne sama kàddu gi dana xaw a sant jaxate ñu sant jaxate jéggal ma ko ndax da ngeen a jiital sëñ naa Abdou Wadud te su waxee ba noppi dana jafeeti ci téere bi ci boppam ñu wax ci ndax ñetti ponk yi ci ëpp solo wax na ko ci tënk waaye nag jotaay bi tax mu gën a amati solo mooy damay tàmbalee fi sëñ Cheikh naa tëje mooy aw yoon la wu jub wow maanaam fi ngeen ci toll gisaguma man ci yoonu murit kenn ku bindagul ci maamam ku indi téere bu bu toll nii gisaguma ko te man jàpp naa ne liñ ci bind boog liñ ci móol quatre vingt pour cent yi gis naa waaye man ci sama appréciation bopp lu toll nii moom gisaguma ko ci gisaguma ko ci yoon wi waxoon naa ko si iblaat ca booba abdoulahad euh, modlo moxtaar dana ko waxaat fii loolu itam aw sasu rëy la li tax nag jataay bi neexam mooy dama amoon benn mashru boo xam ne mashru riwaayi la maa ko bëggoon a tuddee woo hum humu tànnoon ci maam sëñ moxtaar bintaloo maam sëñ modlo dagana moom tàmbali naa ko ak Euh, maam sañ bay jaxate yàlla dogal ca booba maa ngi koy wax sëñ Abdou Lahad war naa ma at ak genn wàll mu ne ma ñu ñu ci bind fekk am na ay lu ma soxla woon li ko waral mooy man ki ma bokk na ci góor yàlla yi ma gën a gën a marqué ci yoonu murid muy sëñ Maxtaar Diop Cumpu ak sëñ jaw Diaw fa nelaw bu yàggul sëñ Abdou Diaw dañ ko joxoon baayam bu ndaw boo xam ne que sañ Maxtaar Binta loolu nekkoon ci njaareem nee na ma daanaka yoon yooni mbaat na su dee sëñ Maxtaar man jëlewu ma ci moom directement waaye ñoom sëñ Omar Gueye lay jëlee sëñ Omar Gueye doon jarbaat ci sëñ Maxtaar Binta muy ñoo xam ne noonu mu amee solo ma jàpp ne nag yoonu murid war nañu bañ rek yamati ci sëriñ bi ñoo ñooñu nag ànd ak sëriñ bi sëñ Maxtaar daa wax ne sëriñ bi ñooñu mu yaral boppam ba noppi ci ñoom mel na ñoom du xalaal xaraam la loolu nag waxi murid rek la yéen a xam du ngeen koy déggee waaye nag bi ngeen ñëwee ne da ngeen ko firndeel man bokk na ci li ma sëñ abdulaat kii lafa jëfandikoo baat léeg-léeg mu wax maandu léeg-léeg mu wax sago te lu jafe la xoolal kër yi wax mbaa yi bind yu bare bare léeg-léeg gis loo xam ne rek dalay leer nañ ne yëfi maam yi la yëfi maam yi la bërki démb rek bërki démb rek ngay gis koo xam ne la muy moomale diw kaka moom ngi dund loolu benn la bi ci des itam mooy Euh, dafa bari loo xamante ni kër yi ak gëstukat yi war nañ cee jàng mooy ñu yaatal seenu gëstu te di ko won ñu bari loolu firiwul ne dañ lay gàggante waaye dañ lay dañuy wëlbati sab gis ci genn maanaam benn wàll wala genn lef boo xam ne yitte jëng ko joxoon xaw naa manqué nga war ko yokk ñu bare bari dangay ngay digg ñu naan lépp ci kër gi lañ ko defee sàllaa moom day njabootam gi mën na lépp loolu itam erreur la boo xam ne mi ngi am ci yoonu murid bi danga koy def sax ñu koy def seeni cérémonie yu mag nga xam ne dañu kii sët ya ñoo jël lépp kii moo ko bind kii moo ko nangam di ko ndamoo fekk soo ko ubbi woon mu gën a yaatu mën nga mën nañ la cee woon yeneen yoo xam ne yéen waa kër gi rek du ngeen ko gis loolu ñaareel la ñetteel ba itam euh, jot naa ne mashru bu gën a bu mën a am tabaa thaniya lay doon ndax li ko waral mooy da ngay xam ne gëstu bi nga ko tàmbalee waxtu wi xat na am na yoo xam ne leeragut ñu gën koo gaaw a ubbiwaat loolu moom euh, yaakaar naa ñun ñëpp ñu ngi xaar bi ci des ñëw su ñëwee li manqué woon fii ngeen mottali ko waaye man li may lancé surtout ci bindkat yi surtout ñu bees ñi ñi nga xam ne mën nañoo bind téere mawdu bu mu mënti jëm ñoom rek koy xool bind ko tàppe ko génnee ko loolu moom lii rek lii rek a bind la boo xam ne ñëpp war nañ cee bàyyi xel muy afraad yi maay individu yi ak famille yi yépp nañuy joxe seen mbind ñu di ko xool ci ñu ñu wóolu ndax ci lañu gën a mën a euh, yaatal ongle yi maa ngi jégluwaat baax baax dañoo dolliwaate yéem sëriñ Moxtaar Bintaloo waaye dolle yéem liggéey bi xam naa benn baat rek laa ciy wax boo xam ne suñ Moxtaar Bintaloo ko wax ci sëriñ Masamba saxayta bi ixsaanin ila kulli man tara waaye itam waa hay saxaytum bi ixsaanin ila kulli man taraw nag mhm, macha allah xas dëgg jëm ci sëriñ Moxtaar Bintaloo ak ak tim ci ci maanaam téere bi wa nassu hakada ixtar li xarfiya yaa miizaanu muxtaara min albuxuuri likay azuura muxtaara ixtar li xarfiya yaa miizaanu muxtaara min albuxuuri likay azuura muxtaara naxtaaru zawra adiibin caalimin waricin qad kaana bayna ulil aqlaami muxtaara qad kaana daftara taarixin wa macrifatin wa baaraka allahu ma abla wa maxtaara ixtaarahu allahu min ñomre li yabcasahu ila alxadimi alladi bilbirri qad xaara walcheyxu qarrabahu dëhran wa jaawarahu yaa fawsa man kaana xibban cindahu jaara raaqa almala wactala qadran wa naala ula ala kathirin min al axyaari mibraara cheikh alxadimu alladi ma mithluhu ma mithluhu ahadun rabbaahu tarbiyatan awlathu anwaara wa nawwara allahu bilmuxtaari afidatan min azbi min azbi ixtarafu ilman wa asraara alcheikhu sayyadahu wal ilmu zayyanahu kaddurri fi unuqil jamaali miswaara alcheyqu xarabahu xaqan wa tayabahu billahi sawabahu lilxayri midraara kam sajjala alcheyqu lil ajyaali mawcidatan lawlaahu daacat wa darbu alcilmi qad naara jaazaahu rabbiya an cheyqi alxadimi wa an ahli almacaarifi iclaanan wa israara jaazaahu rabbi bima abdathu xadratuhu sifran nafiisan cajiiban faaqa asfaara jalaa banuuhu dalaama aljahli anhu wa ma abdahu mawjun yaduumu dëhra misxaara mbokk yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu alhaya bi nga xam ne mooy hayatu turaasu ihyaa turaasu Cheikh Makhtar Binta Lo kàddu googu it mbokk yi kàddu yi cant lay doon rekk ci lu gàtt gàtt ngir li ci waxtu maye ñu tënku ci mbokk yi ñi nekkoon ci xëy bi di liggéey noo ngi yëkkati seenu cant di ko ci jooyal ci a Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo toogee caay Serigne Touba te ñaan ñaan ko mu yàgg ci lool te ànd ak ay ndam nag ngir taxawaay bi ak yëg gi ak yitte ji mu def ci liggéey bi ba mu tàmbulee ba tey état bu ñu toll rek mu wane ne liggéey bi ab ma ngir Cheikh Mouhamadou Bachir digganteem ak Serigne Makhtar waaye ngir nag kilifteef gi ko yàlla jox ci mbooleem yoonu murit te kër Serigne bi te bokk ci yoonu murit bi ci mujj rek mooy biñ noppee ci téere bi jot nañ ay yóbbanteem yu bari bi mu yégee ne ñu ngi koy móol di mettit lu ci xolam ne xamul woon ne dañ cee jublu ak móol waaye bu xamoon loolu moom la war ba mujj mu dugal ko ci nopp Serigne Fallou mi nga xam ne moo jiite kër gi mu xamal ko ne ko sax njaboot ñoo la ci wutu te muy noona yi nag xëy bi bokk yi ñi ngi woo usra Cheikh Makhtar Binta ci koo xam ne yaa ngi nga fëgg ko ngir yàlla ndax buñ mënee liggéey lii ba mu am njariñ tey daa am ñenn ci ñoom dama ciy taxaw ñenn ci ñoom ñoo fëgg lenn ci seenu kaggu dañoo bëgg nag ñi fëggagutoon ñi bokk ci ñenn ñooñu dimbale ñu fëgg li ñu yor ñu jariñoo ko te yàlla tax ñi jotoon a fëgg te fëggoon lenn yor la ci res ñu fëggal ñu ko ngir ñu jariñoo ko te yàlla tax loolu moom ak ñaan la guñ di ñaan ñoom ñëpp ñi fëggutoon nañu fëgg ñi fëggoon nañ fëggaat ba xam lañ dese bu ñu ko génnee des na ko mën a génnee ci yeneen yu ñu mën a jariñoo bu fi jot gi maye woon dañ ko leen tudd waaye dañuy woo mboolem jàngkat yi ak gëstukat yi ne leen ab yaxa ngoog la sëñ Fallu waxoon seen yoxu jumaa ngoog waaye seen yoxub téeree ngoog seen yoxub téere ngoog yër leen ko bu ngeen noppee lu ngeen ci gis lu aaje dolli mbooloo mi loola dañ koy bëggee lu ngeen ci ko as lu aaje wàññi mbooloo mi dañ koy bëggee lu ngeen ci gis lu aaje jubbanti mbooloo mi dañ koy bëggee ñu ngi woo jàngkat yi toll ci jàng wa rawatina goney kër gi ñu xam ne seen liggéeyub maama ngoog seen bantu maama ngoog bu leen neexee mu doonu nekk bu leen neex mu doonu kër lu mu leen neex mu doon ko bunt bu ne ci téere bi man na risaal doctorat te ku ko ci soxla haya bi daañu ci jàppalante seen cëmt laay kattan kon loolu ab wat la boo xam ne moom la ñuy jëmale ci mbooleem bokk yi. cant yi nag ñu ngi koy tàmbalee ci sëriñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy fi nekk sëriñ Touba sant ko ci yittewoo boo xam ne yittewoo na liggéey bi bañ ko tàmbalee ba ni mu jeex eh, yitte googee yittewoo googee ak ñaan feeñ feeñ na bu baax ci liggéey bi kon ñu koy jox cant. bu xam ne amatul ab di ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba mi muy liggéeyal yàlla wattul na ko fi lu yàgg ñaan moom di liggéey njaboot gi nga xam ne ñoom laa sarse woon liggéey bi ñu jóg euh, ak seen yitte ak seen yéene euh, ba taxawal ba amal liggéey bi ñu teg ko ci suñu loxo muy loo xam ne lii lu am solo luñ mën a wane foofu nag seenu cant maa ngi teewlu seen waajur yi nga xam ne ñoo fi làq bàyyi ma ñoom te kenn ku ci ne leer na ma ne yóbbaale na ci xolam yéene woon lu mel ni lii yàlla far ko dogal ci seen gannaaw waaye dogal ci seen gannaaw génnewu ci seen loxo ndax seeni njaboot rek ko defar waaw kon cant googu Cheikh Matar yaag sa rakk yi nga xam ne yéen doon liggéey liggéey bi yéen yéen ko moom na xam ne nag bi ma leen fàttalee seen waajur yooyu fàttali leen seen maam maa ngi ci occasion waale di jëmale message ndax sëñ Maxtaar Binta dowul moom dong nekkoon fi sëriñ Touba fekk na fa ay kàngam yu mag a mag a mag ay kàngam yu mag a mag fekk nañ ko itam te lii eh, dëgg la ñi ko doon liggéey ñaar liggéey nañ ko ci ñaari at ma jàpp na nag kàngam yooyu woon fa sëriñ Touba ña fa sëriñ Maxtaar fekk ak ñam fa fekk ña fa fekk ñëpp ku ci ne tey jii mënoon nañoo liggéey lu tuuti lu gën a tuuti sax liñ liggéey ci liggéeyu sëriñ Maxtaar bi ba génnee fa lu mel ne lii kon maa ngi woo kër yu mag yépp ku ci ne la nga xam ne lii moom la seen waajur ya dencoon ak seen maam ya ñu góorgóorlu ngir yàlla ba génne lu ci lu ñu mën a jariñoo kooku message boobu maa ngi ko jëmee ci kër Sëñ Tuubaa gépp jobatu Sëñ Tuubaa gépp jëmee ko ci taalibe yu mag yi yëpp ci kër yëpp laa ko jëme foofu li ma ci gën a yittewoo moo di mag ña bu ñu fi nekkoon ba léegi su fekkoon ne nit day dund ñaar téeméeri at ak ñetti téeméeri ak leer na ma ne mag ñooñu jamonte woon Sëriñ Tuubaa su ñu fi newoon ba léegi suñu àddina si ni mu ni mu lëjee du du ko lëjee ni mu naqare du ko naqare ndax xéewal yi ñoom du leen woon te def lañu war a def xéewal yi du leen soxla du si xéewal yi du leen yitteel sax fan maanaam du leen tee nelaw du leen tee def lañu war a def loolu nag liggéeyu tubaab la tubaab yi ñoo ñëw Sénégal indi ñu fi am njàng jël ci njàng ma dugal ci ab culture ab saqaafa maa ngi leen di delloo ci benn conférence boo xam ne sëñ Isaaxa mas na koo def boo xam ne da cee wax diggante taalim ak ak ak bi diggante njàng ak culture mën nga jàng français ba na xar ba noppi yor sa culture islamique yor sa culture bi nga xam ne moom nga doon Sénégal kon ñi nga xam ne ñii ñoo fi newoon àndoon Sëriñ Tuubaa suñ fa newoon ba léegi seen culture boobee ñu yoroon moom lañ doon yoral Sénégal ba léegi te jàpp naa ne ñu bare ci ñoom daañu jàng tubaab daañ jàng anglais daañ jàng arab bu di ko bind ba mën a déggoog arab yi sax ndax seen njàngoom arab moomee la mu doon foor foor sóoraale woon sax di am ay alaaxaat ak alama arab yi bind ak yooyu seen doon néew soon dañoo jàngoon xam-xam jàng lislaam ba xam ko jàng arab ba dégg ko ñenn ñi di way ñenn ñi di bind ñi ñoo gënoon a dégg arab arab yi waaye taxul woon ñu tiitaroon ne damaa dégg arab yi ay wolof lañu woon dégg kon nun ñii fi des ba léegi message euh, conférence boobu sëñ Isaaxa mas a def maa ngi leen ci delloo ñun ñëpp dañ ko xooliwaat xam ne mën na noo jot suñu culture ba noppi jàng langue yi ci àdduna yëpp yor ci suñu réew mi misaal bi ñu joxe rek mooy suñu mbokki asiatique yi Asie benn réew bu mbokk Asie boo xam ne bokkoon na ci colonisateurs yi amut colonisateurs yi ay européens la ñu kon asiatique yi mosuñu dominer kenn contraire dañ leen a dominer woon ñoom yilif leen waaye tey jii am na ci ñoo xam ne ci seen culture bopp jàng nañ langue yépp jël seen culture bopp fexe ba développé ba génn ci loxoy colonisateur yi Philippines dégg nga Malaisie dégg nga Indonésie c'est yooyu ay réewu jullit lañ ak nag réew ya nga xam ne du ñu réew ay jullit ay Inde ak Pakistan Pakistan sax réewu jullit la dégg nga Iran di misaal Iran nag nekk misaal mu gën a fort ci misaal yi ñooñ ñëpp dañoo amoon dañ leen a ilifoon coloniser leen ñu fexe ba dellusi jot seen bopp waaye ñu indaale seen culture ba noppi téyewaale langue ba nga xam ne boobu moom lañ leen domine woon ña ngi ko doon jàng xam ko man ko ba noppi téye seen culture lii ma leen di wax nag pour mu gën a leer na ngeen fexe ba amaat conférence sëñ Isaaxa boobu mu ngi ci média yi loolu nag dañ ci jublu fas yéene sowe suñu Sénégal gi sowe suñu Sénégal gi téye suñu réew mi ba noppi téye suñu diine te du du tee na am relation ak ñeneen ñi waaw kon loolu ga baat yu gàtt la yoo xam ne yi dama ne woon naa ko fi dugal. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di jot seex cant nuyoo bu seex Mouhamadou takka di ko teg ci loxol sëriñ Fallou waaye maa koy defee ci ndigalul sama kilifa yu baax ñi ma fekk te ñu ràññee ci sëñ euh, euh, sëñ sëñ Maamun moom sëñ Fàllu ràññee ci sëñ Xalil ah génn nuyu lu baree baree bari Cheikh Mamadou Muntaxaa ni ñu ko waxee léegi ah mi ngi doon jokkoo ak ci liggéey bi xam na ne lii ab liggéeyam la ndax liggéeyam Serigne Touba la te liggéey bi rëy na lool te sëñ Mokhtar Binta mi ngi ko mi ngi koy liggéeyal. doonoon kenn ci Serigne Touba doonoon kenn ci njabootu Serigne Touba doonoon ku ta ràññu ko woon ab taxawaayam boo xam ne xam nañ ne sëriñ Touba ba mu ko gisee euh, ba mu ñëwee ci Touba jox ko boppam ba mu ko gisee am na lu mu ko bëggoon a liggéeyloo moo tax mu jaarale ko fa mu ko jaarale ba mujj nekk ki mu nekk doon kenn ci ñi nga xam ne. Euh, dañ koo liggéey liggéey bu rëy waaye ñu liggéey ko liggéey bu rëy ci xam-xam ku ne gis na net lii nga xam ne Serigne Touba daana ko wax daana ko wax njàngale ay njàngale lañ ko tudde sax njàngale yi nga xam ne Serigne Touba daana ko def ak mbooloo mi te xam nañ ne lu ci bari ci wolof la ko daan def waaye gis nañ ne Serigne Mokhtar da ko doon def ci arab la waaye boo koy jàng da jàpp ne Serigne Touba moo ko waxee nii ci arab kon loolu lu yéeme la. kon daal ah dañ leen dañ Cheikh Mamadou Mountakha nee na daf leen di sant rek xam ne lii ngeen liggéeyal moom ngeen ko liggéeyal ndax day koo xam ne warees da koo xam warees na koo roy ndax boo boo ko xamul doo ko mën a roy loolu moo tax lii ngeen def am njariñ ndax day tax ñu man koo xam man mag ñi day tax ñu man man leen a xam ba man leen a roy te bu ñu leen royee dañuy taxe ci àdduna texe ci àllaaxira am ñu rafet defaru am jikko yu rafet Ah, ah, man nag dama fee teewul waaye loolu moom dama loolu fàtte naa ko ndax ñu ko ndax ndax dama fee ñëwoon ngir dama dama bëggoon a ñëw ngir académie nan ginnaaw bi sëñ Isaaxa woo ma yónni ma ndax digganteem ma kër gi digganteem ak sëñ Fallou loo waaye Seex Mamadu Muntaxa mujj woo ma mu ne naa ànd ak sëñ Muntaxa Mamoud mi ànd ak euh, sëñ Baara moom sëñ Moussa Bachir ànd ak Moxtaar Seck ak ak mboolem ak ñu bari na ñëw teewal ko ci bis bi ndax lii da koo fonk lool. lii dafa rëy ci moom lool kon nag xëy euh, jaare ci sëriñ Fallou ñëw ci xëye bi nga xam ne ñoo doon liggéey liggéey bu rëy bii Cheikh Amadou Mountakha mi ngi leen di sant sant cant gu rëy rëy goo xam ne amul àpp waaye nag mu ngi leen di soññ di jaar ci yéen di soññ ñëpp ngir ñoo gën a bàyyi xel lii seen eh, kër maam ku ci ne nga fexe ba toppatoo ko ba xam nam doon dunde xam nam doon dunde ak Sëriñ Touba ba mën cee bind lu leer loo xam dañ ko fi bàyyil danañ ko mën a dañ ci mën a jariñu ñun ñu fi teew waaye dañ ko mën a bàyyil ajiyaal yi ñëw bañ mën cee jariñu ndax loolu ndax amul lenn lu gën a am solo kon nag jër leen jër leen jëf seexun moo tax mi leen di wax jër leen jëf rek jësaaku mu laa xeeran jësa ayadaku mu laa wan rasulakum